واجعله دابا مسكنا تعلمي وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم waa jërëjëf xanaa di sant suñu borom bu wér rek sant Cheikhul Khadim ndax eh, bis bi agsi na te toll na nu ne wàccaay wi laaj loo xamante ne dafa mel ni suñ lépp lañ ciy def Euh, mu sës nag ci poroxaan bari ci logistique bi loo xam ne dafa nekkoon poroxaan nga war ko indi diggante jóge poroxaan ñëw Touba rek xat-xat yi defe naa ku ne xam na ko nga boole ko bëgg dara du tardé ngi daal ci lañ toll waaye ñoo ngi fii te euh, boolewuñ kook dara euh, tey ñu ngi gis ne suñ borom it ñu ngi ciy dimbali ndax yàlla suñ borom far na sëriñ bi ñu baax ñëpp far nañ ko loolu nag dina feeñ ci bis bi moo tax loo ci yëkkati da ngay daal di xam ne euh, am na ñu ànd ak ñun te duñ leen gis ni nga xam ne rek saxaaba yi ba ñuy xare euh, jigi-jigi rek ñu ne leen am ma dëwoo rabbu la na am bi jundi am laaki nisaam liaada din laali li xam ardaw zawi nga xam ne yow da ngay sànni benn fet fet mu jam nit ki jam fas wi bëtt suuf si di dab nga xam ne lii du doolee doomu aadama doolee malaayika la loolu nag am na fi ñu toll nii lépp ñu sotti euh, mbaar yi man dama gis ne mu jammaaw bi mooy jëmm université bi dafa yaatu te fu ci ne war naa doon ay wàccuwaay jigéen ñi fi ñu ne du bokk góor ñi officiels yi fi ñu ne du bokk ak ñi nga xamante ne dara indiwu leen lu yëkkati xaside yi am na ñoo xam ne dara yëkkatiwu leen lu tudd tur yàlla bi muy sunu mbokki Baay Faal yi ku ci ne nag waajal nañ la barab boo xam ne ker daf faa war a am kon nag ñun Hizbut Tarqiyyah ni ñu amoon ci déploiement ci logistique lépp jël nañ ko luyewaat nañu it dolli ci waaye am na ñoo xam ne it am nañ seen bonne volonté indi ay mbaar euh, ñu ngi ciy sant kuréel bi nga xam ne sëñ mbay saar moo ko jiite muy euh, investisseurs yi ñoom wax dëgg yàlla ay mbokki taalibe la ñoo xamante ne indi nañ fi ba euh, bâche 1000 mètres carrés ak li mu war a àndal lépp bâche boobu nag kon incha allah kuréelu xaside yi fa la ñuy nekk di yëkkati te kuréel yi it li ñu wax du doon benn kuréel buy jàng joxaat moroomam déedéet kuréel yëpp ñooy jàngandoo la ñuy jàng donte alfun wa alfun wa alfun ñetti junni yi nit bu ñëwoon di ko jàngandoo du bari kon ñun yëf yi euh, li ñu ëmb ci cant lott nañ ci waaye nañ ci def li ñu mën lépp lii daal moo ñu fi dajale li ci des it mooy ñeneen ñi am ay bâche suñ ko bëggee euh, indi ngir muy seen participation ci bis bi comité d'organisation baa ngi leen di xaar su fekkente ne dañ koy loué ñu nit ñu ngi leen di xaar loolu lépp daal amul ndax wax dëgg yàlla fi ñu toll nii xeeb naa li fi nekk ci ay dispositif yéen mën ngeen ko wane euh, waaye fi ñu toll nii tey ci ngoon rek maa ngi séntuwaat yeneen bâche yu ñëw yoo xam ne war a toll ci six mille wala huit mille mètres carrés mais xeeb naa ko xeeb naa ko te li fi jot a nekk ëpp na quatre mille mètres carrés waaye xeeb naa ko kon nañu nañu indi bâche yi te te mu ànd ak dispositif sonorisation bi ñu am dispositif dañ ko indi ndax dañoo toll ci bis boo xam ne murid yëpp dañuy boole seen euh, kattan ak seen ak seen xol ngir santale seen Muntaxa ndax ci lay ëppee doole ni julli julli julli mbooloo ëppee doole julli kenn buñ boolee suñuy xol yàlla amul xol waaye day jël suñu xol yooyu nu boole def ko muy xolam di sottal lépp kon tey jii ñoo ngi sant waa Touba ca kanam ndax ba ñu tàmbalee liggéey bi ba sëñ Habibou bi mu ko yëgee ba tey seeni i engin seen i camion seen équipe ñu ngi fi te yamuñ ci wax naa ko sëñ Habibou nee naa ko ay basang lu ngeen ci fàggu du tey sëñ Abdoulahat Ka kenn munu ko mi ngi tamit mobiliser wu ay équipe ay engin am ay mbooloom ay euh, ouvrier am bàyyiwul kenn te it léegi rek maa ngi réceptionné euh, lu am solo ci ay basag yoo xamante ne sëñ Ahmadou Samb am naa bu ngeen defee ay interview ak ñoom dinañ def décompte bi mën a jot euh, li nga xam ne mooy bordereau yi mën koo wax nit ñi ñu xam ko ndax bis la boo xam ne ku nekk dañuy indi li nga am nun daara ja dinañ togg sëriñ bi dinañu toggaloo waaw wilaaya sëriñ bi dina leen toggaloo sunu bàjjan di sunu kilifa naka jekk di bay faalu soxna jaara muy soxna baali dina togg togg yu yaatu waaye yemu fa kon togg yi dina amaan ñeneen ñoo xam ne dañuy togg seen togg bopp indi ko kon defe naa bis la boo xam ne faw ñu xam ne fay xal ma xis la sëñ Tuubaa daal defal nañu loo xam ne kawe na njort faw ñu sant ko cant koo xamante ne day mel ni dañ ko naan euh, nafaytal aza an nii wali suqta mat la bii fala bu demee sukrin bi zikrin wa tajwid yi lii daal mooy bis bi waaw loolu leer wajalu daaban maskana taallumi wa mawdia alfikrati waltafahumi wa maskana alirsadi waltaalimi wa maskana altaswibi waltafhimi